Bye. Moussa maa ngi lay ziar. dellu ziar ba. si loo ne. maa ngi sant yàlla ba julli cëndu sant sama ñaari waajur. lan moo bi tey fii nga xamante ni mooy waay open presse Thiatou Daouda Fall. waaw xam nga Thiat moom ku ne xam na ni dañoo bokk benn deret waajuram ak sama waajur ñu bokkoon ci benn benn gox gi ñu daan yeewoo di demalante di dikkalante te tey jii mun naa ne man ak moom ay maarak lañ ndax. sama papa tey tuddee na mun naa ne sax Daara Fall bi mu bëggoon tuddee Marème tey yàlla suñu borom moo dogal mu doon jigéen mi sama mag Marème Sakho di ko ñaan yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana euh, ak trondooram yëpp yàlla suñu moom def ko mu doon jigéen mu tuddee ko Marème Thioub euh, sama papa doomam bu góor tey da jigéen boo ko yàlla sédd ci diggante ñoom ñaar mi papa Daara Fall tey jii boo xoolee les deux du cadre du ba les numéro deux moom mooy turu làmbam déedéet mais moo Mouhamed sama baaba la nga tuddee waaw kon yaakaar naa ni du du tey du làmb deret moo ñu boole ak kóllëre ak juddu fekk ko fi voilà. bu jëm combat bu rëy bokkoon si kalaaf euh, def na ay sorties yàlla may ko si dem tey muy bëriwaat combat bi nga xam ne combat capital la si combat bu neex la. combat bu bu am sens. combat boo xamante ni nekk na combat boo xamante ni mu naa ne dina ñëw ñaari mbër yëpp. Euh, kaaw xam naa ko. ndax bokkoon nañ ci entraîné mu nekk ni ko sérieux ci entraînement mais moom di daar ca Daara Fall ku na xam na ni euh, waxuma combat bi mais moom dafa bëgg dafa bëgg li ci kanamam waaw boo bëggee li sa kanam nag yi jege nii du la déranger kon daa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom génnee ko ci rek euh, mu mën a jóg jàng mag bi ziar naa Cheikh Mara. Cheikh ak waaw Cheikh mooy Cheikh Mara. jàng mag bi ziar naa. maa lay delloo ziar ci loone sant yàlla bu baax sant alhamdulilah borom kàddu appui ah. maa leen di ziar. ah borom kàddu appui waaw c'est mon ami c'est mon frère. waaw non non yow sama boy nga waaye da nga xaw a doy waar tuuti rek. waaw ci loone yéen ci ah loolu du question. loolu du question. ndax ki xewle mun naa wax ni sama doom la sama rakk la sama lépp la. waaw muy xale bu am jom am fulla am fayda bëgg li muy def. yaru teg ci nag ba pare joxe cër di ko ñaanal yàlla suturaal ko te ko ndam sedd guy man nee naa ku ma yëg rek yaa ma moom te xale yi vraiment dañ maa bëgg ba pare ma vraiment moo tax lu mu xat xat xat xat xat xat dinaa def déplacement ñëw ndax ci ñoom la ci ñoom la man Guédiawaye laa am Guédiawaye laa tiitaroo Guédiawaye ah sama waa jaa ngi noonu njagawaay njaga mu Balla Gaye 2 waaw est-ce que xam nga euh, ku ma ku ma yëg rek moom. ndax àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex kii nag xale la yaru na joxe na cër bëgg na li muy def bëgg na muy def li ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat loolu rek moo jar a ñaan ndax nee naa ko nee naa ko damay xool ci moom Balla Gaye laay xool ci moom booy bi bi Balla Gaye di député loolu laay xool ci moom li ma koy ñaan daal yàlla na ko yàlla lafal cat te musal ko saytaane at làmmeñ ta xale la waaw fi mu teg tànkam foofu la liggéey entraîné moytu ñooñee te moom def na loolu. kaar maa ñor si yaa sagatu gémmiñ bul kuuf ma la làqoo naa la jumaay Touba wax rek ngeen di def seen làmmiñ jure dimbali ma kaar xale yi ku liggéey fayeeku ku liggéeyul doo fayeeku xale yi dañuy liggéey dañuy entraîné bul ma waxati loolu ah. secret lan secret bi entraînement rek entraînement xale yi dañuy liggéey entraînement la ñu gëm ñoo ngi entraîné yàlla na yàlla jàppale musal lañ ci cet at làmmiñ waaw waaw amiin yaa rabbana ñu fekk ñun ñëpp ku fi am combat daal géej yàlla la yàlla may ndam waaw affaire du lenn lu rek entraînement rek la du lenn gëm gëm li nga bëgg nit soo bëggee benn affaire di viser ko ne moom nga bëgg da nga koy gëm jox ko ak xam ba mat lamb dafa fiir entraînement teel a tëdd moytu ñooñee. Ah. grand Balla laa lay woy sax maa ngi lay ziar. sant maa ngi lay fay bu baax. yaa ngi si jàmm. bu baax ñu si jàmm bu baax kay. tey ñëw fekk la euh, si open press ki nga xamante ni mooy Thiatou daw Fall. Mhm. mu war a bëre ki nga xamante ni mooy Kaw Gourdin. samedi incha allahu rabbi combat boobu noonu nga koy waajee ak lu mu mën boobu. waaw Daaw Daaw suñu rakk la suñu lépp la bu xewlee dañ siy ñëw te combat bi waaj nañ ko bu baax koo xam ne pare na ñu koy ñaanal yàlla dimanche yàlla samedi yàlla may ko ndam. su ko mën yóbbu. sa premier grand combat waroo ko échec ñu koy ñaanal yàlla mu réussir ko rek. comme Kaw Gourdin xam ni xeexkat la xam ni bërekat la est-ce bu ñëwee tey si combat mu fekk bi nga xamante ni yaakaaru ko woon si diggante ma kii di Kaw Gourdin est-ce que du ko indil ay jafe-jafe booy bi xeex kan la bëre kan la bu ko booy bi daaxul góomal Kaw Gourdin moo ko ko daax rek jàpp nga ne moom booy bi ak daal booy bi ëpp doole moo daax bëri moo daax xeex mu ëpp doole te buñ jàppante fu mu jaaral ay morom yeneen fa la leen fa jaar dañuy konda konda moom nga xam ne nekk si moom bu baax mhm. maa ngi si kaw maa ngi toog di xaar di waaj yaa ngi nappe de non nappe fa nappe moom damay waaj rek maa ngi toog di waaj na bëggee ndax yaa ngi soog a xaar teg sa pile. non non dafa sedd rek. daa sedd moo tax. dégg saa lu mu wax ki doon. kan si. kab bi ana kab bi sax laafa bi. kab bi mu ngi kër ga. laafa jàmm nu nga jël. mu ngi kër ga na ko jël si. te laafam la. na ko jël si mu ngi kër ga. moom la du wax dara dafay bàyyi ba jour ba rek. bon bu jour ba lay gën a métti ci moom sax. lépp lu ko métti woon noonu. lépp lu ko métti woon da ngay xaar combat bi ñëw moom mën ko appliqué. barki sëñ Touba góor a soog a gën a tàppat si mbër yi dama xam moo gën a tàppat si làmb ji. góor a soog bu tàppatoon tamit du la jël te dëggaloon te bu jour laa mu jaay dinaa la woon li moo a moom. man kooku sama doole laa koy daanee mais pas ay liggéey. jàpp nga sama ay bu daan. dégg nga ma wax maa mën doole te bu jour laa mu ci xam dara. am dañ lay bàyyi nga nuyoog presse bi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Guédiawaye bu baax a baax a baax di nuyu waa Dakar bu baax waa Waalo waa Fuuta maa ngi nuyu monde entier di nuyu axlu lamb bu baax a baax a baax di sant bu baax a baax sama waa koñ parce que dérangement bi bëri na lool xam nga yend la tuñ fanaan la tuñ te yëngal nañ fii bu baax a baax a baax maa leen di gërëm di leen remercier di leen baax bu baax a baax a baax a baax. soo open press sa premier grand combat nan nga fas yéene la 4 décembre fële ci arène nationale. di ko waaj comme ni mu daan waajee yeneen combat yi mais bii ni ñu koy waajee dafa différent parce que bii suñu premier combat la laay wax du wax sama premier grand combat mais sama premier combat parce que dama koy daan te daan bi day am fu may yóbbu moo tax bu ñu daan def un ñu ngi def ba lan moo tax nga ne dama koy daan confiance bi est-ce que xam nga adversaire bi mu jiitu la ci yu nekk. te yaakaar naa ne moo la jiitu ci làmb bu la expérience fan nga teg ne da nga koy daan. yow fan nga teg ni moom ëpp expérience. parce que ku la jiitu ci nekk bu lëndam wala fi ngay toogee. moo mag moo mag certes mais man doomu mag laa da ngeen fàtte te ay mag ñoo ma yar sama staff ñëpp ay mag lañ kon mënu ma ëpp expérience bañ naa loolu. combat bi ci fan la mën a jeexee gars yi ko am question rek xeex wala bëree lan nga fa yéene andi les sources. waaw préparé xeex préparé préparé dóor préparé bëre. combat bi xam nga dayoo bi mu am. xam nga bu baax moo tax ma jël ko jox ko akam bi mu yelloo yëpp na ci li ci war yëpp période bi ñu toll période wax nag période jëf la te bu leen neexee ngeen ñibbi ba jour a sant incha allah. jàpp dañu dégg jox favori bi ci bëre bi est-ce que loolu da nga koy nangu astafurlaa yow la jox favori bi ci xeex bi léegi moom bëre bi moom nee na yow dàqoo koo bëre est-ce que mën nañoo xaar sa jour ji kaaw mën naa am ci combat bi comme que bari yoo lañ jox xeex bi. waaw chaque jour ma taxaw ni man mënu ma damay jàng mais ci cadre bëre bi tamit chaque jour ma wax ko te xëccoo ma bëre daan laa xëccoo daan kat baa ngi daan tous abonné silence Thiat maa ngi lay nuyu di la ziar. aywa. Fatou nga nekk xale tey géejawaay yëpp jox la bopp macha war a la kaat war a daje kaw ko Modou Anta la ci làmb tey est que doo bëri waale fugg bi ak mbooloo bi topp sa ginnaaw nga ne boo ko doo def erreur ak li topp sa waaw ci loolu noonu dama ci sawar tontu parce que man mosuma bëre nit ba nekk favori kon mënuma nekk favori ci kaw kaw gu rëy combat bi dama jaral jaral waa géejawaay yëpp. ak mbooloo bi topp sama ginnaaw ñoo tax may fas jom di war a teg bëre bi ci ci kot bëre lu leer yàlla may ma ndam incha allah mbooloo bi dañ may yokk jom bu baax a baax a baax a baax ah, kon mënuñu ma juum bi ngay dugg ci tournoi bi tukaar nga doonoon ñëpp ne caatu Daouda Fall amu ci sens tey nga dem bay bëre daj dëpp gi dëgg-dëgg combat bi est-ce que caatu Daouda Fall parce que chaque jour ñu la koy laaj dëgg-dëgg combat bi ak li muy représenté sa carrière est-ce que xam ko. waaw Euh, dina Tivaouane Peulh lan laa la waxoon ci tournoi man la ñoom. non point dama participer ci ah, lool laa taxaw ba léegi ñoom dañoo participer pour mottali lim bi man dama ñëw pour jël tournoi bi man a ñoom bokkuñu ko wax tournoi wax géejewaay. mu xeexee mu xeex day daanu mu bëre day daanu te sama gars yi dama leen roob ñu taalal ma loxo ma leen lu xew. ñu nit ñi suñu loxo yi dafa oyo parce que six points moo ci nekk neuf points lañ soxla kon dañ koy andi le quatre incha allah. yaakaar ku dàq bëre. yaakaar ku dàq bëre. waaw li ma waxoon laay dellu si waat man xëccoo bu bëre daan laa xëccoo ba tey daan laa xëccoo. moom loo am ci làmb mooy ñëw ak jàmm tuus ñëw teg sees bi toog man maay animé maay def lépp lu fa am maa koy jàpp maa koy defeere cadu muus ko parce que gis na ne day wàcc ci mbapat yi lépp luñ fi teg avant tournoi bi taxaw lépp luñ fi teg da koo boole téye ko ci loxoom ba ñëpp nangul ko ne daa mën a bëre kon nii ngay waxee est-ce que xeeboo Kaw Gourdin ci bëre bu amateur yi dan ne bu ñu wuree ci bëre amoo ci sens ci bëre waaw bëre lañu wax mais bëre yàgg yàgg fan lay mujjee man Dante baa ngi mooy wax parce que Balla Gaye suñu mag la suñu grand la suñu lépp la su ma demee mënuñu ma comparer ak moom war naa xoolaa sama bopp parce que lu mu xat-xat bu dee benn jour la sax teg na ma ko ci loosam bii di daw di entraîné jàngal la ma bëre bu fekkee dem naa di bëre te gisuñu ci maa ngi bëre gisuñu ci man Balla gisuñu ci man Sa gisuñu ci man Lac de Guiers gisuñu ci man Les 2 ak bépp terrain bu nekk Guédiawaye kon war naa xoolaat sama bopp parce que ñoom ñëpp laa def sama référence. waaw di santaat bu baax a baax a baax di woo waa waa bu baax ci combat bi waa liw xam nga waa Seedo waa Pade xam nga Caareen seen dëkk wolof yëpp Malick Thiawet maa ngi koy woo baax a baax Thierno Sama Sama maa ngi koy woo ci combat bu baax baax a baax a baax. di woo waa waalo yëpp waa ndimb waa Kër Momar Sarr waa Cekkeen waa Yiba waa Caadeen xam nga waa Risaator Rosso Béthio ñiij ñi ñëpp maa leen di woow ci combat bi di ci woo waa Ndar bu baax a baax a baax waa Pikine Angal Taal xam waa Sanc Ba waa Goxu Mbaaj surtout waa Pikine Angal sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax baax di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga di ci woo waa Géejawaay ñëpp nag la Diop maa ngay woo di ko tàllalaat loxo ci combat bi di sant Mamadou Ndiaye bu baax a baax a baax suñu futur maire kooku aw ma fayam soxna Assa Waalo Kane maa ngi koy sant bu baax xam nga mi ngi jaay si combat bi <coughs> Modou Bousso maa ngi koy sant bu baax di sant képp ki nga xamante ni yaa ngi jàpp ci combat bi di wax sama waa fans club maa ngi ñëw si mobilisation bi sama waa fans club bi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di sant boo soosee B52 xam nga fils bala Balla Ndiaga Balla Gaye Lamine Gola sama coach mi ngi daj ci man coono <coughs> Lamine Faye mais su ma ñëwee ci mobilisation bi incha allah le cas da ngeen gis benn jàpp Daouda Fall. moom nee raam dox moom day dox ñun day raam ñëw xaa déggoo lépp lu fay neex man maa koy def.